yooyu jaam bi mën a ci jikkoy yonent bi alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla daf koo tagg ne koy yaa ngi ci jikko ju mag yàlla waxu ko ne ko am nga sax jikko ju mag wa innaka la ala xuluqin azim dafay tegtale ne yonent bi alayhi wa jikko bi mu bu màgg boobu duur ne daf koy jéem ndax dëgg la nit mën naa jéem lu baax ba jikkoo ko waaye jikko boo xam ne sa moomeel la loolu mooy li yonent bi am nga xam ne kenn mënu koo bett ba soppi jikkoom kenn mënu koo merloo ba soppi jikkoom kenn mënta dof doflu ba soppi jikkoom noo mën a mel rek da nga fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ju màgg ji nga xam ne ni moom la ko yàlla tabaraka wa taala taggee sayidatuna aïcha radiallahu anha dañuy jiital sax wax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci jikko bu rafet ndax dafa wax ne akmalul muminina imanan ahsanuhum khuluqan ñi gëm yàlla ñi ci gën a mat gëm yàlla mooy ñi gën a màgg jikko yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moo gën a màgg jikko ñëpp moo tax moo gën a mat ci gëm yàlla moo tax yàlla tabaraka wa taala wax ko ne وخل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إسلام أك إيمان دانن ويتشي أنتي ينمتبي بمنك أول المسلمين لنك أول المؤمنين موتق هو أكمل الناس إيمانا لأنه أحسن الناس خلقا سيدتنا عائشة رضي الله عنها وحنا وحننه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما ينمت صلى الله عليه وسلم ما سنكوتان الله ديغنت نياري يف لمي بيشي غنى يومبو موم لاي تان فيك نكوت بكات فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم لنفسه إلا أن يهتك محارم الله فينتقم الله biha masta fayul boppam lu may bu fekkee ne dañoo jàggati xormaa yàlla yi yàlla fayoo ci moom sallallahu alayhi wa sallam جلين انت عائشة باتي موحتي رفتك جيكو ينتبي صلى الله عليه وسلم من ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله من ينتبي صلى الله عليه وسلم مستدور تلخون بك جيجين ولا لقي كتم wala mindaanam lu may mu nekk ci jihaad ci yoon yàlla nga xam ne boobu yàllaay wax ne dóoral boobu rafet jikko mooy def li yàlla wax waaye ci dulu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masta dóor kenn te masta fayul boppam lu may bu fekkee ne dañoo jàggati xormaa yàlla yàlla fayeeku moom jikko bu rafet ba mel ni Anas radiallahu anhu wax ne xadamtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ashra sinina liggéeyal naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma fukki at waaye masu maa wax maa qaala lii li cheyin faaltu li ma faalta kada wala li cheyin lam afaalhu ala faalta kada fukki at liggéeyal naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masu maa wax benn bés ci loo xam ne def naa ko mu ne ma lu tax nga def nangam wala loo xam ne bàyyi naa ko mu ne ma lu tax defoo woon amul jikko bu tedd ba àgg foofu ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saagakat duutoon kastekat moo gën a rafet ni ñëpp jikko buñ toppoon ahadis yooyu ci loolu rek lañuy nekk waaye dañuy taxaw ci ay taxawaay ci dund yonent bi sallallahu alayhi yoo xam ne daf ñuy melalal jikkoom bu rafet naka la mel damay teewlu bi nga xamee ne abdullahi ibnu ubay ibnu salul nga xam ne mooy rasul munafiqin mi nga xam ne yàlla nga wax yonent bi wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la taalamum nahnu naalamum moom moo nekkoon rasul munafiqin nga xam ne matoon nañ ñetti téeméer ak nangam yonent bi xam na ne naafeq la waaye am na doomam ju baax muy abdullahi ibnu abdullahi ibnu ubay ibnu salul bi baayam génnee àddina dafa ñaan yonent bi mbubam pour pour muuree ko baayam pour def ko këfan pour baayam yonent bi jox ko ko te xam na ne bàyyi ji naa fekkal mu ñëw ñaan yonent bi ne ko dafa bëgg mu jullee baayam yonent bi dem jullee ko te xam na ne naa fekk la Seydina Omar taxaw ne yonent bi lu tax nga koy jullee di tënkee ci bu bi yonent naan ko doo ko jullee yonent bi jug Seydina Omar ne ko yàlla aaye na la nga jullee ko yonent bi ne ko yàlla daf maa tànn loo innama xayyarani llaahu ne ma istaxfir lahum wala tastaxfir lahum إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ينون تبين وسأزيد على سبعين نيالا يالا دفكونا باهلو لين يالا ولا نا نياك لين باهلو يالا واي نافق يب ولين باهلو لين يالا جروم نيار فكي يون صح دوتح يالا ينون تبين من دنا يوكو چي جروم نيار فكي سنة عمر نكو نافق لين ينون تبين جوليكو يالا دورا واتي ينون تبين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره لولو بوكونا تي موافقات عمري واي لولو لمي تكتلي يننتو بي مو غنا خم سيدنا عمر منافق نافق نافقي واي جيكوم بو رافيت اك كي دومام ديغا خمني صالح لا نيت كو باخ لا موتاخ يننتو بي توغو لولو ييب تي بايدي دي با يالا ايا كون نافقي بولين بولين بولين بولين جوليتي mas nañ koo may xulla bu rafet am saxaaba yi boo xam ne dafa ñëw ñaan ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko am ku ne ko yow lu tax nga koy ñaan te xam nga ne bëgg na ko te moom du gàntal kuy ñaan mu ne ko dama ko koo ñaan pour bu ma deexee mu nekk suma këfan waaye wax ji mooy lu tax nga koy ñaan te moom du delloo aji ñaan moo tax la Farazdaq taggee sëtam bi ne maa qaala laa qattu illa fi tashahudihi lawla tashahudu kaanat laa'uhu naamu loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg moo ko moom donte Ali Zeynul Abidina am na wiraasa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafet jikkoom weesut ba demee Saa'if nga xam ne lor nañ ko fa liñ ko def yépp malaaka feeñu ko ne ko ndax ma boole ñaari montagne yi ci seen kaw ñoom ñëpp ñu alaku yonent bi lan la wax allahumma hdi qawmi fa innahum la yaalamuuna yàlla jéggal leen ndax xamuñ mu ne ko ndax amaana yàlla génnee ci seen digg yi ñoo xam ne nii dañuy sujootal yàlla te boo demee taayif tey doo fa fekk lu may kuy sujootal yàlla nga xam ne rafet ji ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo desal ñooñu bañ ak si foofu rafet jikkoom boobu moo feeñ ba mu ubbee Makka nga xam ne yàlla nga ko may doole may ko xëyba kaa ngi mel ni guddi ci bëccëg te ci bëccëg lañ nekk ngir nga war yi nga xamne ne bi ak sahaba yi ñi ànd ak liñ waroon am ben ba màkka bo xamne dafa gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam lol di lox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko hawin alayka ma ana bi malikin innama ana ibnu imra ana ibnu ibna ana ibnu imraatin kaanat taakulu qadida bi makka yonent bi ne ko oyo falalal la yëf yi ci yow man duma buur duma dara doomi benn jigéen boo xam ne daf daan lekk ay seel yàpp fii ci Makka la waaye loolu yëpp waa Makka yi liñ ko lor ak fi mu jaar ak ñoom mu juddoo foofu yàlla yónni ko mu am fukki at ak ñett di oote ñi koy lor muy muñ te yàlla joxu ko ndigal sax pour fayu loraange mu génn ñiit toppaat ko xeex naag ñoom ay xeex waye bam ubbe makka wa makka yeb taxaw ay mbokam taxaw munelen ne leen maada anni fa'ilun bikum qalu khayran akhun karim wa ibn akhin karim fa qala idhabu fa antum tulaqa mu ne ba leen laaj ba bi laje lu ngeen fogné lo la len di defal tay muné ñoom ñi ne ko yow mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen dem leen yéen ñi nga xam ne boy ngeen yàlla boyal na leen mu nekk loo xam ne Abu Sufyaan bi nga xam ne xeex naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa ba sonn bés boobu nga xam ne ba mu gisee yonent bi ak ñi mu ànd ak mu ne Abbas sa nguuri doomi mbokk mi rëy na de Abbas ne ko lii du nguur lii ak nubuwatu la ba nga xamee ne amatul benn pexe mu ne dugg na ci lislaam Abbas daf ne yonent bi da koy teralee dara ndax Abu Sufyaan dafa bëgg àddina nga teralee ko dara yonent bi sallallahu alayhi wa ne man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aminun ku dugg kër Abu Sufyaan rek kooku mucc na kenn du ko laal ndax xam nga ne Makka yàlla daf koo xaraamal ci ñëpp benn bëccëg rek la ko xaraamal ci yonent bi la ko daganal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy bés boobu muy dëkk boo xam ne yàlla daf koo xaraamal ba ku fa taseeg ku rey sa baay sax amuloo droit xeex ak moom kenn rek lañ fa mën a def dara mooy koo xam ne dafa def bàkkaat feneen daw dugg màkk waaye ku fa ku fa ku fa dajeeg ku baayam sax mënu koo def mënu koo def dara ndax xormaay barab bi waaye Abu Sufyaan boobu yonent bi terelee na ko loolu loolu yëpp di wane màggaay jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggaay jikko yonent bi dara gënu cee màgg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masta fen ndax lii tegtale loolu Abu Sufyaan ba ko Hiraql di laaj laajam yi nga xam ne dafa wax mu tarjim bi wax gi nga xam ne moo leen gën a jege ne ko bu fenee ci li ma fay laaj nii nang ma wax ne fen la ba mu ko laajee ne ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana huruj mu ne ko du huruj dana fen DDN info groupe whatsapp la 76 593 89 04 abonnement 500 chaque fermement 500 foofu la mbokk yi dana fen mu ne ko du fen te loolu kii kooku ba muy wax loolu moom ab noon la woon kooku amut ku gën tedd jikko ci moom moo tax jikko yi tedd yooyu nga nekk nga xam ne moo nekkoon ci moom moom la moom la moom la moom la jëmbat ci saxaabaam yi ku fekk ci yow bépp jikko benn jikko bu ñaaw du dëñ di di tàgg du tàggoog yow fekk tàggook jikko boobu sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masta nattu ci nit fen lu may dañu di ittewoo mbiri kooku ba ba mu yëg ne kooku tàggoo naag fen maanaam euh, dootut fen bokk na ci jikkoom bu rafet ba nga xamee ne ci hawazan jàpp na ay jar-jar lu mat juróom benn téeméer te fekk chimaaw mu nga fa mu ne bu fekkoon ne de sama yaay dafa nàmpal xiraq la wala mu nàmpal buuri buuri ruum wala buuri faris kon buñ ma jàppee jar-jar ci moom danaa mucc yonentu tubi emut ci jéggal na ko moom Chimaaw waaye keroog baaxal na juróom benn téeméeri jar-jar yoo xam ne dañoo ñëwoon pour teex ak moom ànd ak loolu yonentu bi teral ko balalal ko mbubam mi mu toog bàyyi mu ne saxaaba yi sax di wax ne di jaaxle naan baa sax ngoro daf koo lal yooyu te boobu xamul ne kii mbokkam nàmpaaleem la boo xam ne xaraam na ci moom mu takk ko waaye feeñal na jikko ji rafet jooju ba nga xamee na sax mu ngi nàmp ci ndeyam xalimatu saadiya bi nga xam ne mooy ndeyi Seymaa moomu ndax fi yar yi na te liñ ne ne yonent bi sallallahu alayhi bu ko ndeyam jooju nàmpalaan weenam bi bu nàmpee ba pare bu ko joxee beneen ween bi bu ko nangoo nàmp ndax xam na ne am na mbokkam boo xam ne moo bokk ak moom ween wi kooku ba muy nekk ndaw rek la commencé di taxawal maandu te jikko bu rafet man sa am mukk lu may maandu bokk na ci jikkoom ju rafet dara gënu cee màgg muñ bi nga xam ne moom la muñ ci lor gi nga xam ne nii moom la ko Quraysi lor fukki at ak ñett façon lor bu nekk lor nañ ko ko waaye muy muñ rek muy muñ rek ba nga xamee ne dem na ba nga xam ne ñëw na ci Xudaybiya nga xam ne gis na يلا موكو وان ني دنا عمره لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بم غيسه لترؤيا الانبياء سين جنت يوم وحي لا كن من نادم كون منا دم عمره جي بم نيوي حديبيه وا مكه دوفي عمره رن مو نيك جفه جفه boo xam ne dafa war a jubóog ñoom ñi yónni Suhayl ibn Amr pour ñu juboo bañ yónnee Suhayl ba mu ñëwee ñiy bind seen ittifaaqiya bi nga xam ne moom lañ doon bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du bind mu jox Seydina Ali Seydina Ali commencé bind bismillahi rahmaani rahim Suhayl ne ko dindil bismillahi rahmaani ndax ñun xamuñ loolu ñun bismika allahuma lañ xam ba mu bindee ne min muhammadin rasulillahi mu ne ko da ngay dindi rasulillahi googu ndax ñun gëmuñ ne yonent yàlla nga looloo tax ñi xeex ak yow ñu ne yonent bi sallallahu alayhi ne Seydina Ali bindal ñoom liñ bugg bindal bismika allahuma muhammadin rasulillahi bi nga bindoon dindi ko bindal muhammad ibni abdillah riwaayakat siyeer yi nee nañ naa Ali sax dafa bañoon bañ googu di ñàkk teggin ndax teggin ak tegginoog màggaay yonent bi la ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko wan ma fi mu toll mu wan bi sallallahu alayhi wa sallam effacé ko bañ waxee ne duñ dugg màkk mu nangu loolu mujj gi ñu jaaxle gannaaw bayatu ridwaan jaaxle goo xam ne jikko yonent bi sallallahu alayhi wa feeñ na fa ndax bam ne wattu leen ñu ne lu ñuy wattu ñu dañoo di ñëwoon pour umra umra wuñ lu ñuy wattu loj leen seen gëlëm yi duñ loj suñ gëlëm yi ndax dañoo waroon a umra umra wuñ lu ñuy loj suñ gëlëm yi mu laaj ñu ne umu salamata moo diisoog moom nekkoo ko yow da ngay loj sa gëlëm yi nga nga ba pare nga wattu boo ko defee ñoom it dañ la topp ci loolu mu euh, loj gëlëmam wattu ñoom ñi topp ko ci loolu waaye jikko bu rafet boobu nga xam ne moom la leen attanee lan la jur moo jur fatxu makka bi nga xam ne nii ñëpp makka yëpp mujj nañ nekk ci lislaam ba lislaam bi gis nga ni mel ba ba ba àgg ci mboolem fu mu àgg ci àddina bi loolu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fa àggale am na ñu bëri ñoo xam ne dara dugalu leen ci lislaam lu jikko bu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am saxaabi bu ñuy wax Zayd bin Saxna dafa déggoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa kenn manu koo manu manoo manoo dof doflu ba merloo ko ba tàggale koog sagoom mu ne danaa dem seet loolu mu fekk am saxaabi yi boo xam ne fekk ay aj laajkat boo xam ne dafa ñëw di laaj yonent bi te fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amewut lu mu ko jox te moom du gàntu waa ji ne Zeyd moom ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama lay lebal ci kaw nga fayee ma toli diw bi yonent bi ne ko déet sallallahu alayhi wasallam. Dang da may lebal ci kaw ma fayla la waaye doo charte ma fayee toli tooli diw bi mu jox ko diit diit ba jotagut mu ñëw poñe ko ne ko ma fay waaw nii rek ngeen mel yéen banu Muttalib du ngeen fay bor commencé di xaste ba Seydina amar moom mer ñëw ne dafay rey waaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam. ne ko am na lu gën a xeey maag moom yëpp am na lu gën a xeey ci loolu danga koy digal mu rafetal fayeeku gi man nga digal ma ma fay ko ba mu gisee loolu ci la dem ba ci kanam mu dëpp ñëw ne man jikko bii rek laa doon seet ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah taxaw na am benn waay ci banu islam fekk ñu wër ko rek mu ñëw ne ana kan la kii ku ngeen wër nii kan la mooy fenkat bi nga xam ne mooy wax ne yàllaa ko yónni waaye man de duma la gëm mukk feeg suma mbëtt mii gëmut la te mbëtt muñ rayut sax gëmut kenn rawatina mbëtt moo xam ne rey nañ ko ba def ko ci mbuus yonent bi sallallahu alayhi ne ko yaa dabbu mu ne ko labbayka yaa rasulallah fekk bi waa ji waxee loolu Seydina Omar bëri na yu mel noonu ci moom ndax def na ko ba def ko ci xaqi saxaabi yu ba waa ji waxee ne kii mooy fenkat bi Seydina Omar dafa ñëw ne dafay rey waa ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ala rislika ya Omar kaada alxalimu an yakuna nabiyan ne ko ne ko teeyal rek ku teey tuuti kon sax mu nekk ab yonent nga xam ne ab yonent moom teey ak lewet ci ay jikkoom la bokk mané ne mu mel sayyidna umar jikkoom bobu dem na ba am ko ak sahabi ndax hatib bin abi baltaata sahabi rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne fekke na ba dar te bokku na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam don doon yónni ay lettaram ci bour yi dafa ma sa bind leetar wa Makka di len wax plan yi sallallahu alayhi wasallam yàlla wax yu yonent bi li xaatib def yonent bi sallallahu alayhi oo Seydina Omar ne ko demal ci waadi xaax am na benn jigéen bu fa nekk mu ngi amee benn leetar boo xam ne dafay dem ci waa Màkka pour weer suñu sekkare Seydina Ali ñëw ne yonent bi génneel leetar bi nga amee ne ne ndaw si génneel leetar bi nga amee ndaw si ne ko amee ma dara mu ne ko boo ko génneewut danaa la futti ndaw si génnee leetar bi bi ñu indee leetar bi jàng ko ci kanam yonent bi sallallahu alayhi ñu gis ne xaatib moom moo bind leetar waa Makka di leen di wax secret yonent bi si naaw man ne kii naa fekk dañ koo war a rey yonent bi ne ko déedéet Omar defam ndànk loo xam ci koo xam ne fekkee na Badar loo xam ci koo xam ne fekkee na Badar ana jikko ban moo gën a rafet jikko boobu ndax ñi ba dar yàlla mo leen yurru ne leen def leen lu ngeen neex i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum def leen lu leen neex man yàlla baal na leen waye taxutoon ñi ba dar def lu leen neex ño gënon na tënku ndax seen roy ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci rafet jikkoom sulh Hudaybiya ba nga xamee ne waa Màkka yi dañ koo conditionné ne ko bépp bépp jullit ci julli ci màkk yi ku daw ñëw ci yow dañ ko delloo si ci ñun te képp ku daw ji yonent bi dem ci ñoom ñoom duñ ko delloo yonent bi sallallahu alayhi wa ana jikko bu rafet buy nangu lu mel noonu ci la delloo abu jëndal ci xay àddina rahmaan rahim du nangu ñaanam yi nga xam ne dafa rot ci julli guddi te rot na ci ci julli guddi yonent bi sallallahu alayhi daf ci ñaan jikko bu rafet di ci muslu ci jikko yu ñaaw moo tax bokk na ci jikkoom yi nga xam ne tudd nañ ko ci injil ak tawraat ak melloom ne lam yakun fazan xalizan wala saxaaban nekkutoon koo xam ne dafa jafe nekk ku ku te yàlla wax na ko ko ci alquran ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ci yërmaande gu tukkee ci yàlla ci nga nooyee ñeexal way gëm ñi boo fekkoon ne da ngaa nekk koo xam ne da ngaa diis jafe kon nit ñi duñ la mën a wër loolu ci la borom xam-xam yi wax ne moo tax bokk na ci shuruti daa'i ila allahi tabaraka wa taala an yakuna xasana alxalqi xasana alxulqi layin al arikati وحنا موم صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلق درجه القائم الصائم نيت كي مننا امي سي ديكو جو رافيت درجاي نيغا خامن داني اور سيني بيتك داني دوندال سيني غودي ييب سي اي جولي دي اور سيني بيتك وحنا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم ان اقرب الناس اليه يوم القيامه أحاسنكم أخلاقا نانا نيكوي جنا جاجي شي بلاص يوم القيامة موي نيغا خامني نيو جنا رافيت جيكو تي نيت ني ني جنا رافيت جيكو تي نيت ني نيو جنا جاجي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا ربنا شي نانا مي نان اللهم انت الملك لا اله الا انت أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك buy bokk na ci ñaanam yi nga xam ne daf ko doon ñaan ci guddi neew yàlla yaay buur kenn du buur ku dul yow man sa jaam laa bu tooñ boppam bu nangu ne tooñkat la baal ma su may mboolee mi bàkkaat kenn du baale bàkkaat yi lu may yow waaye nag ma jubal ma jëm ci gën caa rafet ci jikko te kenn du jubale ci gën caa rafet ci jikko ku dul yow waaye nag ma soppi walis ñaaw ji jikko te kenn du soppi jaam yi walis ñaaw ji jikko ku may yow kon loolu dafay xamale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafet jikko fan la toll ci moom saxaaba yi nekk li nare ki nga xam ne moom moo jël njabar njabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dafay def dara du xam ne def na ko gannaaw gi bi nga xamee ne jibril wan na ko njabar boobu bañ génnee ko biñ ko génnee fekk nañ ndox mi nga xam ne teen bi nga xam ne fi la jabar gi nekkoon mujj na sax couleur bi soppeeku jaune ngir li muy def ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi génnee loolu yépp ki defoon jabar googu ki nettali xadis bi ne gannaaw gi gis naa waa jooju muy dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gisuma ci xar kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam luy tegtale ne kii mas na koo def dara lu ñaaw rod na ci xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wa kenn mas ta yootu noppam bi di ko yootal dara mu dindi noppam bi lu may dangaa pare kenn masu koo jox loxo mu rocc loxoom bi lu may yow dangaa pare jule saawam yi daf leen daan séddale ci nim leen di xoolee nim leen di xoolee sax daf ci daan jox ku nekk sa wàll ba nga xam ne kenn du gis ne diw mii moom moo gën a kawe ci man walla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la gën a bugg ci man an ana jikko boo xam ne nii bu kawee ba mel ni jikko boobu xale sax dana téye ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam omat ko mu uyu ko jigéen dina ñëw ne ko dama laa soxla mu taxaw déglu ko wax ak moom xeebut kenn ci loolu te loolu jikko bu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi moom la ko yàlla may képp koo xam ne ci moom ngay roy sallallahu alayhi wa yaa mën a am jikko bu rafet waaye ku royit yonent bi sallallahu alayhi wa baax luñ ko mën a tuddee dafa gentil dafa nangam da nga gis mu def loo xam ne nii danga xam ne mbaax ji des na ndax jikko ji moom moo mandee ci ci ci ci ci mbaax للعنف ولا على شدتي نيالا دانا جوخي تي يومو لوم دو جوخي تي تات ندخ موم واخنا ني بعثت بالسيف والليني فوجدت اللين اقطع من السيف يالا داف ما يوني جوخنا ما جاتي بق بو بقيه جوتي بور فايو ندخ فايو رك مو تاخون مو خيخ اك تخاول دغ با فتنه دو ام وايي بودو لولو موم واخنا ني صاح bu leen mébét xeex bu leen mébét dajeeg noonu laa tatamannaw liqaa al aduwi fasalullah aafiya fa ida laqitumuhum fasbutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen mébét sax dajeeg noon yi waaye ñaan leen yàlla aafiya waaye bu leen yàlla nattoo nag ba ngeen dajeeg ñoom bu boobaa na ngeen muñ kooku moo wax ne innama buistu li utammima makarim al axlaaqi yàlla daf maa yónni pour mu motali jikko yi rafet yi baye neena jikko yi rafet yi nga xam ne ummahaat makaarimil axlaaq yi nga xamne mom la yàlla tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy yuti man haramahu wa ya'fu amman zalama wa yasilu man qataa kuko togn mu jegal la kuko xagn mu jox la kuko dag mu jokk la baye nak tek ci ci ben khutba ci khutbay gamuy mu wax ne ndax xutbaam yeeg gàmmam yi lépp pour delluwaat nit ñi ci xut jikko yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne jikko yooyu ñett jikko yooyu ku la tooñ nga baal ko ku la xañ nga jox ko ku la dagg nga jox ko mu ne loolu ku ko jikkoo yow ci sa bopp amuloo noon ku la noonoo bu ko yàlla dimbalee balaa yàgg mu tuub wala bu tuubul loolu dana ko kon loolu doy na gàllaaj ku fi déggoon ne am na gàllaaj goo xam ne ñu ngi koy bind fële ca wàllaa def ku ko def rek ku la tooñ sànku danga dem ba wàllaa def di ko uti gàllaaj bu gën a wéer ba ngay uti ci gaa wàllaa def mu ngi nii yonent bi moo ñu ko jàngal mooy bi jikko bu rafet wax na ne innakum la tasi'una an-naasa bi amwaalikum fasi'uhum bi axlaaqikum kenn ci yéen man xajal ni ñépp ci alalam waaye jikko ju rafet mooy noo xam ne ñëpp xañ nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gën a xees ci nit ñi mooy nit koo xam ne nit ñi dañ koy moytandiku ngir moytu xayam hee di wa nga ne di ñëw de moom de teex rek saaga rek xuloo rek loolu ku nekk war na ko moytu jikko ju rafetam ci la doon mulaatafa xale yi ndaw yi ba ënës ànd naag rakkam boo xam ne perental la mu amee piccam boo xam ne picc mi dafa feebaroon yonent bi di ko laaj yaa uba umayr maa faala nughayr te picc mi naka la def loolu kuy toppatoo bay toppatoo picc mu feebar tey jii boo demee Europe ngay fekk nag ñi toppatoo xayawaanaat yi di toppatoo xaj yi di toppatoo nangam ñi jàpp ne maanaam seen civilisation bi moo àgg foofu waaye civilisation l'islam ak jikko bu rafet yi yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal na nit ñi naka la ñuy amee jikko bu rafet ba am ko ak euh, xayawaan yi ndax wax na ne am na koo xam ne dañ ko doon tudd ci ay julleem yu bari ak ooram yu bari yàlla dugal ko safara ngir benn muus rek la jël tëj ko jox ko mu lekk te bàyyi ko mu uti lekk yàlla dugal ko safara ci loolu tudd na koo xam ne ni amul benn jikko waaye dafa am dafa gis xaj bu mar fekk moom mu mar naan ba màndi mu gis xaj bi mar bay euh, euh, manque suuf si mu ne xaj bi dafa mar li ma dala ko dal amul pexe mu dem tànk naanal jox xaj bi mu naan yonent bi ne yàlla dugal kooku aljanna ngir tooyal bi mu tooyal këbidu kël bi ci la ko yàlla dugalee aljanna loo njortu ci jaam yoo xam ne dañuy dajee guddi goo xam ne dajeewuñ lu may di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nandalante ci yàlla di leexalante ci yàlla te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ayul islaami afdalu qaala itaamu altaami wa ifshaau alsalaami ala man arafta wa ala man lam taarif lexele ñam ak siiwal jàmm ci koo xam ak koo xamut sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jikkoom ji rafet kafe xale yi comme ni ma wax am na terental ku doon wax umu xaalit ñi solal ko mbubb mu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko kafe ba di ko làkk sax làkki waa xabasha parce que di ko wax ne sëna sëna dégg nga ablay wax laq yi maanaam yow sa mbub mi rafet na lool yàlla na nga yàlla na yàlla na yàlla na nga yàlla na nga ko ràppal yàlla na nga ràpp yàlla na nga màggat xanaa ci la olof yi jëlee ku sol mbub mu rafet ñu ne yàlla na nga ko ràppal di ko wax xaleel boobu bokk na ci jikkoom ju rafet umaamatu sëtam di doomi Zeynabu bu doon julli di ko enu ci kawam bu sujjootee teg ko ci suuf moo tax am koo xam ne dafay wax ne maanaam fuqaha yi wax ne euh, di julli fekk yaa ngi teg kaala ci sa bopp bi loolu sib nañ ko ñi ne xam nañ ne umaamatu moo gën a diis kaala googu noonu bokk na ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baax bi mu baax ci xale yi daan na jël xasan ak xuseynu di len nga waral ñi war ci kawam muy ram melni mom moy sen fas loolu la Cheikh Ibrahim radhiyallahu anhu ci mébétam yi nga xamne lu jokk ak yonent bi rek mébét nako walayti walaytiye عدين فوقه وليتي كالصديق ليتي كجعفري وليتي يوما كنت شربة مائه وحامل كأس للأمين المبشر وعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرقيق المحرر من إلنته هناك ممل حسن الحسين من خمنة ينتبه داف لين دان غورل تدني وارتي كوم ممل نموي سنفاس سيدنا عمر دافا نيو فك لين ينتبه بان لين دي غورل نونو سيدنا عمر نيلين نعم الفرس فرسكما يندي ينا باخ فاس ين يخمنة ينتبه صلى الله عليه وسلم موي سنفاس فاس waaye yonent bi ne ko ni'mal farisaani huma waaye baax nañu ñoom ñaari ngawar yii muy xasan ak xuseyn noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoom rafetee jikkoom bu rafet dafa am saxaabi boo xam dafa ñëw fekk yonent bi di koon aqra nga tudd mu fekk yonent bi di foon xasan moom mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man de yàlla may na ma fukki doom waaye masu cee masuma cee foon kenn yonent bi ne ko man laa yarxamu laa yuxam koo xam ne doo yërëmee duñ la yërëm aw amliku in kaana allahu nazaa min qulubikum rahma lan laa man ma bu fekkee ne yàlla dafa dindi yërmande ci seen xol pour xam ne loolu yëpp xeet la ci yërmande bokk na ci jikkoom bi rafet fatimatu doomam bu ak séan di ko nuyu yonent bi dafay taxaw sallallahu alayhi wa sallam pour nuyu foofu la jikkoom toll jikko bu rafet nag eh, aada la ci ki ko ci ki ko moom tabia la ci ki ko moom ki ko moomagul nag daf koy jéem ba mujj nekk aada mooy bugg koo am ba man koo loolu mooy jikkoo jikkoo bëgg-bëgg la boo xam ne da koy bugg a def ba mujj nekk sa jikko nga mujj nit ki ci lay jaaree mujj not ay bëgg-bëggam mujj mën a mer te du mer mën a fayu te du fayu mën a xaste ñi xas ko mu mën a e, fayu te du fayu loolu yëpp yonent bi jàngal nañu nag jikko yu ñaaw yi naka lañ koy fajee ni ñuy fajee jikko yi ñaaw yi mooy dañuy gaawantu def jikko yi rafet yi ku juumoon ba saaga rek gaawal wax lu baax comme ni nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale ne koo xam ne da ngaa gën ci laata mu ne na nga wax la ilaha illallah xam nga gëñ filaate xeet la ci bokkaale yàlla bokkaale yàlla dara gënu koo ñaaw ci jikko yent bi jàngal ñu bàkkaat boobu nu ko jaam bi di paase mu ne mooy nga laata lu jaamu la lu dul yàlla nga dellu yow wéetal yàlla kon moo koy faas mu ne bu fekkee ne sa mbokk danga wax sa mbokk ne ko taala uqaamiruk ñëwal ñi carte mu ne loolu noo koy fajee mooy nga dem saraxe loolu mooy jàngale fa atbi al xasanata fa atbi sayiata al xasanata tempuha jikko ju jëf ju ñaaw joo def nanga ko toftale ak jëf ju rafet boobaa mu paas ko dana dimbale nit ci am jikko ju rafet mooy àndaaleeg nit ñu baax ñi ndax na tibaa tasruq tibaa ndax jikko yi dafay wàllante danga nga ànd ak nit ku baax muy wax lu baax ba nga miin wax lu baax ànd ak kuy wax safaan ba nga miin wax safaan ànd ak saalixiin yi ànd ak eh, nit ñu baax ñi jàng seen siira ku nekk mën ngaa seetlu sa bopp man ngaa xëy jàng siira rajul saalix rek mu def ci yow benn jikko boo xam ne nii moom moo lay eh, kooku moo la ko may te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale Aristote jàngale na ko ne nit ki bu fekkee jikkoom dafa dem ba paase dayoom na ko fajee def safaanam moo tax daan nga gis ci saalixiin yi ñoo xam ne bu ñu yëgee seen bopp bu ñu yëgee rëy ci seen bopp dañuy dem ci marché yi di enohaan te soxlawuñu enohaan loolu yëpp pour dindi rëy ci seen bopp moo tax mag ñi ci seen tarbiye sax Seydi yi ku daan tarbiye ci moom ñoom Seydi yi ñi ñoom Seydi Boubacar ku daan tarbiye ci moom daf lay daf lay ebal nga dem taxani mat te boobu am na si ñoo xam ne ni xamuñ sax ma su ñoo xam taxani mat waaye be fekk boobu maanaam mu ngi njëkk a yar ci yow dindi rëylu bi nga xam ne ni eh, jaam bi mu ngi nekk ak moom te rëy ku ko def mën naa dox sa digganteeg doo dégg sax waade doo nangu ku la wax ne ragalal yàlla ndax buur bi nga xam ne Abdul Malik bin Marwan dafa am muy muy taxaw ci min minbar am ku ne ko yow buuri julli ragalal yàlla mu ne ko boo ma ko waxatee fii ma taxaw laay dalee di dagg bopp ba ak ci yow waaye Seydina Omar mi nga xam ne yarab yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam bañ ko waxee ragalal yàlla dafa wax ki wax ne ko baaxu leen bu ngeen ñu ko waxut ñun tim jubu jubuñ buñ ko déggut ci yéen loolu ci yarab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jógee faj jikko yu ñaaw yi wala faj bëgg-bëgg yi suufe yi ci fàttaliku may yàlla yu mag yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ndax dafa dafa am ku ko jox benn mbalaan bu rafet nit ñi commencé di di xéemu am mbubb mi moo taaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne la manadilu saad ibnu muaz fi ljannati خير منها ن سعد بن معاذ مشوارم رك سي الجنه مو گن مي نين دي هيم سي تاري سي تاري ادنا موتاخ دغ دغ يونتو صلى الله عليه وسلم موي جانغالي كات بي گنا ماك سي تاريخ تي تاريخ جوت اندي جانغالي كات بو مل نونو موتاخ معاويه بن حكم السلمي با خامي dafay julli mu wax ci biir julli gi am ku ci mu ndokkeel ko nit ñi di ko tàccu muy wax naan lu xew loolu yëpp ci biir julli gi bi mu paree nag yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko inna hadihi salaat لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال مومنا بمي بكو يونس بيوخي صلى الله عليه وسلم وين نتري لولو من فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منه تعليما فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن صلى الله عليه وسلم موتخ مو غنى مات نينيب تي جيكو موتخ جيكو يويو دوينا قرآن نيتي الإسلام موتخ بايني بحب لحبك يدعوني دواع عديدة جمال وإحسان وطبع موافق وآيات صدق بان جهرا بأنها من الله كل الأمر راق ورائق نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم من لي ماي ورال بور ما بغ لا يو لا يو بري لا من مكو لين يو لا ستار بي ميغا خامني حسان تا غونناكو واحسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء yàlla la bind nga mucc ci mbooleem ayib mu mel ni rek yow ni la neex la la yàlla bindee waaye dafa wax waroon a mënoon naa wax ne xasaan jéggi na ma koy gàgganti waaye man bu ma doon wax damay wax ne ka annaka xat xuliqte kama yashaau da ngaa mel ni dañ laa bind comme ni soobee yàlla te loolu mooy li xam yàlla daf koo bind comme ni soobee yàlla mooy akmalu naasi xalqan wa azamuhum xuluqan sallallahu alayhi wa sallam jikko bu rafet boobu dëgg-dëgg mooy li nga xam ne mooy li tasaare lislaam ba nga xam ne àgg na fu nekk ngir jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëri nañu tuub dara tuubalu leen lu may jikko yonent bi xawras fekk na ko mu ngi ci àll moom kenn di faj aajoy doomi aadama mu génnee jaaseem ne ko kan lan moo kan moo lay musal ci yow ci man yonent bi ne ko yàlla mu loxo loxo lox ba jaaseem ji daanu yonent bi jël jaase ji ne ko yow nag kan moo lay musal ci man mu ne ko sa mbaax rek sa mbaax rek yonent bi ne ko tuubal mu ne ko du ma tuub nag du ma tuub moom waaye dootuma la xeex dootuma ànd kenn koo xam ne nii daf lay xeex sallallahu alayhi wa moo tax bàyyi ne rafeti jikko yooyu moom moom lañ soxla ci oote jëm ci lislaam moo tax jikko ju rafet jooju moom moo oo ñu bëri ci lislaam ba nga xam ne seen xol yi bëgg nañ yàlla bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toroxlu nañ ñeexal yàlla tabaraka wa taala ba nga xam ne ñoom ñëpp dañuy mujj nekk jikko yu rafet yooyu dafay mujj nekk magnatis yi nga xam ne moom mooy oo nit ki pour mu topp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy dimbale كل من روي شيء نبي صلى الله عليه وسلم متخبئنا فأكبر عامل من عوامل انتشار الإسلام هو كون القائم بالدعوة إليه في غاية الطهارة وكمال الإخلاص فيجب على دعاة الإسلام وكلنا دعاة الإسلام أن نحسن الدعوة بالاتصاف بالصفات الكاملة والتخلي عن كل ما يزري بها كما قال الحكيم يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم باي موني موتخ بكون تي سبب يغنى مات تي تخ الإسلام تسارو نكدون أوتي نيني جمشي على ميونتي على محمد صلى الله عليه وسلم dafa nekkoon ci dayob laab ak jikko nekk ci dayob sellal yàlla ci li muy oote bàyyi mu ne moo tax war na ci ñiy oote jëm ci yàlla te mu ne te nañ xam ne ñun ñëpp dañuy oote jëm ci yàlla maanaam ku ku ku tuddoo lislaam rek na nga xam ne ootekat nga jëm ci yàlla ci bii façon wala ci bële façon ndax boo owut nit ci sax te mu dégg nga ne yow jullit nga sa jikko yi ñaaw yi muy gis te moom xamal bu dara ci lislaam daf naan fekkee seen jikko lii la moom lii moom baaxut te fekk foofu jikko yi kooku la moo tax bàyyi ne nañ dimbanikoo ci oote jëm ci yàlla tabaraka wa taala rafetal jikko yi ak dëñ ci mbooleem jikko yi ñaaw yi mu ne lii woykat bi wax ne yow ki nga xam ne yaa ngi jàngale keneen ku dul yow ndax doo jàngal sa bopp bul aaye ay jikko yow ba pare di di ko di di ko di ko def bu boobaa yow def nga lu ñaaw loolu nag li muy xamale ne jàpp ci alquran jàpp ci sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama jikkoo jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom mooy sirru gi nga xam ne moo tax lislaam tasaaroo موتاخ كن بندكات مال نيو نيو ني ньо خامن داني داني داني تكتلي اك نبوو دونتي نيوم دون اي يونتو يو خامن ني يالا دا فا واتي سي نيوم وحيو موي صحابه ني باخ سي سن غناويت دي روي سي سن جيكو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق